Abdourahmane Touré ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la ci matinalu mi FM. mais maa ngi lay fay soxna Fatou Thiam Ngom di am mbégte tamit euh, dal fii tey ci émission bi pour waxtaanee ak auditeur ak auditrice yu rajo Rewmi FM yëpp ci li nga xam ne nii mooy xew-xew jamono ci réew mi. Mhm. yow yaa jiite euh, compagnie générale immobilière du Sahel waaye jiite woon nga fi agence nationale pour l'emploi des jeunes xew-xewu jamono tey justement mooy immigration clandestine euh, mbëkk mi Euh, mën a euh, xëy na wax ci sabab gi mën nañoo sukkandiku ci jafe-jafe xëy gi am ci réew mi. Euh, waaw jafe xëy mi am ci biir réew ci ndaw ñi loolu benn pàcc la. rek ci li nga xam ne nii mooy li koy expliquer mais problème boobu dafa nekk problème bu global boo xam ne nii problème mu société la xam nga émigration irrégulière mbëkk mi boo ko buggee saafara wala nga bug koo saytu ba xam naka la tëddee du affaire xëy kese Euh, affaire bu compliqué la boo xam ne nii suñu projet suñu société ni mu tëddee euh, nu mu organiser woo ni nga xam ne nii noonu la ñu gisee pression bi nga xam ne nii moo nekk ci biir ci kaw ndaw ñi euh, effectivement ak perspective yi nga xam ne nii ñooy ñooy ñoo ñoom ñoom ñoom la ñoom lañ jagleel ndaw ñi ak déplacement yi nga xam ne nii ndaw ñi am nañ difficulté pour déplacer wu euh, par les voies légales li tubaab di wax par les voies muy am visa dem ci ambassade yeeg affaire yooyu euh, alors mais boo ko buggee apprécier euh, il faut nga gëstuwaat problème bi démb xam nga tey dafa nekk ni lii lu am lu lu lu jafe la lu jafe la bu baax a baax a baax boo gisee ay téeméeri téeméeri ndaw di génn di dem ci di dee ci géej gi euh, dafa am loo xam ne nii daf ko laaj fi mu toll nii au delà de discours bi li mu laaj d'abord lu njëkk mooy crise d'urgence ñu gérer urgence bi urgence gestion urgence bi il faut que ñëpp ñi nga xam ne nii ñoom ñooy police ñoom ñooy gendarmerie ñoom ñooy marine euh, ñooy ñooy ñi nga xam ne nii ñooy yëngatu ci wàllu social ci wàllu encadrement jeunes yi muy ministère de la jeunesse muy ministère de l'action sociale muy ministère de sénégalais de l'extérieur ñi nga xam ne ñoo yor question migratoire ñoom ñëpp dañu war a dajaloo ku ci nekk ci gestion d'urgence bi ñu gérer problème bi gérer problème bi mooy d'abord ñu ñu fexe naka la ñuy patrouiller forces de défense yi suñu géej ak suñu frontières yi ba nga xam ne gaal dootu fi génn euh, fexe tamit ñi nga xam ne nii ñeneen ñi euh, aide psychologique bi ñu war a apporter ñi nga xam ne nii ñoom ñoo demoon ci géej gi parce que ñooñu seen adduna li ci nar yàqu dafa bari donc dafa am appui psychologique appui boo xam ne nii dañ ko war a am lool réponse yooyu état bi daf ko war a structurer hmm. problème bu bu bu bu rëy rëy la euh, ñu gérer ko. Mm-hmm. Euh, li ci des mooy ñi nga xam ne nii ndaw ñi ñu dem sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk te di waaj a dem. parce que c'est important ñu sensibiliser ñi fi nekk war a dem ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci ci tefes yi muy muy Kayar muy muy muy Yaraax muy muy Ndar muy muy muy ba Cap Skirring. Mbuur tefes yooyu yëpp dañ ko war a wër sensibiliser ndaw ji. bu ko defee loolu mooy gestion crise d'urgence bi loolu mooy permettre ñu arrêter flux yi nga xam ne nii ñoo nekk di am loolu mooy la l'urgence actuellement li nga xam ne nii war nañ ko def loo xam ne nii mooy solution yi ñu war a def ñëpp jóg taxaw ci loolu mooy stoppé phénomène bi bu ñu stoppé loolu ba pare li nga xam ne nii mooy am xale yi jël bi dem parce que loolu mënuñu ko wooyee lu dul xaru parce que xale yi euh, même bul buy par extraordinaire boo yeggoon tamit jafe-jafe ya lay xaar fa nga jëm jafe-jafe yu yoo xam ne kenn xamul nu mu toll parce que boo demee tubaab yi dañ lay jàpp euh, ci centre de rétention ay genre prison ngay nekk ay weer nga fay nekk euh, famine ngay nekk ñi ciy mujj rëcc ci mbir yooyu bu ñu demee amuñu liggéey amuñu fu ñu dëkk ci mbedd mi la ñuy dëkk ci yelwaan la ñuy mujj dëkk donc loolu il faut ñu sensibiliser ndaw ñu wax leen ko ñu xam ko euh, bu loolu weesoo loolu mooy permettre phénomène bi ñu arrêté ko ñu téye nit ñi mm. maintenant loolu bu ñu ko defee ba pare dafa am leneen lu mu laaj loo xam ne nii nag mooy solution structurelle yi naka lañuy def ba ndaw ñi toog fii naka la ñuy def ba ndaw ñi gëm seen dëkk naka la ñuy def ba ndaw ñi xam ni seen dëkk am na perspective pour ñu tekki fi am fi lépp parce que du question ni da ngay dem bitim réew rek mooy tax a tekki. loolu nag euh, mooy affaire xëy mi. Mm. Euh, ñu wax ni Sénégal dafa nekk réew moo xam ne ni suñu réew yi moitié population bi moins de vingt ans la ñu am moins de vingt ans moitié population bi soo jëlee. Euh, soixante cinq pour cent ñu ngi am moins de trente cinq pour cent loolu kon na ngay xam ni problème mu réew mi problème mu naka la ndaw ñi jàngee naka la ñuy fexee ba ndaw ñi am liggéey naka la ñuy fexee ba ndaw ñi am formation mën a liggéey loolu mooy problème mu réew mi loolu nag am na lu baree bari bari loo xam ne nii réew mi def nañ ko ci loolu dëgg la am na lu bari loo xam ne réew mi def nañ ko mais bu fekkee ni réew mi yaa ngi def effort yu baree bari bari bari ba problème yi continuer di am mooy li nga doon def même si baax na même si solution yi baax na même si programme yi baax na mais il faut ñu yokk li nga xam ne nii moom la ñuy def il faut ñu yokk alal bi nga xam ne nii moom lañ ciy def il faut ñu yokk sensibilisation bi il faut ñu yokk communication bi il faut que aussi ñi ñu dénk mbir yooyu ñu gën a taxaw ndaw ñi gën leen sentir que muy ndaw bi dëkk Fongolembi bi muy ndaw bi dëkk Ourossogui muy ndaw bi dëkk Vélingara il faut que ñooñu ñu sentir ni Euh, financement yi mu ngi yegg si si ñoom ñu sentir ni politique active d'emploi mooy programme de formation insertion yi am na ci quarante cinq départements yi ñu sentir ni am na ay infrastructures ci mbir mi lañ bokk loolu bu ñu ko defee Euh, ñu yokk doole bi def ko ci ay dix ans euh, jàpp naa ni dina saafaraal problème bi bu baax a eh, eh, baax a baax. Uh-huh. est-ce que tamit loolu parce que il faut pas réinventer la uh-huh. problème bi amoon na fi ci ni mu toll nii. Uh-huh. ci année deux mille te noonu lañ ko lijjantee woon. Hmm, d'accord alors euh, est-ce que tamit jàppoon ne solution boobu wala saafara boobu dafay jaar ci lépp luy kuréel di lijjanti wàllum xëy ñu dajale ko def ko benn mu doon aw say bu ko defee doole ji gën a bari ndax lu tasaaroo itam doole gi day day day faral di néew. defe naa Sénégal fi mu toll réglé mm-hmm. nañ ay problème mu dispersion rationalité euh, rationalisation du dispositif d' encadrement li tubaab di wax rationalisation du dispositif d' encadrement des jeunes loolu c' est pas loolu c' une solution loolu institutionnelle la mm-hmm. loolu ça ne règle pas le problème euh, loolu te réglé nañ ko euh, je que tey fusionné nañ dispositif d' encadrement bi FNPJ ANEJ ak agence bi doon gérer marchand ambulant yi fusionné nañ leen c' est pas ça loolu ay réponse institutionnelle loolu rafistolage la ça règle absolument rien parce que la nga fay économiser benn un milliard deux milliards ça ne règle pas le problème problème bi li koy régler ay centaines de milliards ay centaines de milliards mooy lan mooy nga am ay programme de politique active d'emploi mooy ay programme yoo xam ne nii nga jël ay milliards dem jël ndaw ñi Saint-Louis former leen ci ay métiers métiers yoo xam ne nii bu ñu génnee immédiatement trois mois six mois ñu am liggéey nga def ko programme yooyu nga disséminer ko à à travers le territoire national cest dire que ay réponses en termes de programme la ñu soxla actuellement mais c'est pas des réponses institutionnelles c'est pas les réponses institutionnelles loolu leer la loo xam ne nii réglé wul benn problème xam nga luy problème bi mooy c'est vrai Sénégal am na politique publique de jeunesse depuis deux mille euh, bu ñu tàmbalee woon ay deux milliards en deux mille Euh, nekk ay vingt milliards en deux mille tey au moins cent cinquante à deux cent milliards ñu ngi koy def dans le secteur de l'emploi des jeunes de l'encadrement de la formation professionnelle des politiques de jeunesse des politiques d'emploi des programmes de politique active loolu la ñu war a yokku multiplier ko par deux def ko def benn plan Marshall pour mm. l'emploi des jeunes yokk doubler ressources yooyu jël ay économie def ko sur la question de l' encadrement et de l' insertion ak day programme durable teg ko ci loxo yu sell ñoo xam ne nii yëg nañ jeunes yi te dinañ taxaw loolu li ñuy def effort yi mu yegg ci jeunes mhm. loolu mooy li nga xam ne ni euh, dañ ko war a def ba pare waxtaan nag Union européenne ñi nga xam ne nii parce que problème bi c' est vrai ñun ñooy zone de départ yi. Mhm. mais ñoom ñooy zone yi nga xam ne ni ñoom ñooy jot popul ñoom ñooy jot. Euh, cible boobu ñooñu parce que dañuy am yeneen xeetu problème ñu mu leen di indil en terme de sécurité et mm. autres ñu lëkkaloog ñoom ñoom tamit ñu am effort yu ñu def jàppale ñu dans le cadre de la coopération bilatérale ak multilatérale. Mhm. ba nga xam ne nii dinañ gën a mën a jox ay opportunité suñuy ndaw. man à mon avis. Mhm. loolu moo mën a loolu moo mën a régler problème bi mais c'est pas une question institutionnelle. c'est une question d'abord pour ñu message jeunes yi jeunes yi xam ni am nañ possibilité tekk fii am nañ possibilité accéder à des à des à des opportunités d'emploi et d'insertion et que état bi mu ngi taxaw ci seen truc ñu sentir loolu et et ñuy def. parce que Sénégal moo nekk pionnier en matière d'encadrement et d'insertion des jeunes. Mm. lépp lu loo xam ni solution la bu baax bu ñu war a def ci jëm actuellement mu ngi fi dispositif solution mu ngi fi c'est que nañ ko opérationnaliser. renforcer li ñuy ba pare ndaw ñi xam ni opportunité yooyu am na ci ba pare ndaw ñi xam ni opportunité fi nekk du politique wala da nga porte parti bi mm-hmm. wala parti A wala parti C pour nga mun ci jot mais Sénégalais yëpp lañ ko jagleel suñu loolu bu leeree rek ak ñu boole un peu sécurité bi ak prévention bi je pense que problème bi danañ ko mën saafara. Mhm. alors ñu wax ci wàllu politique yaa ngi bokkoon parti démocratique euh, sénégalais euh, ginnaaw tàgg tàggatoo bi euh, wala tàqalikoo gi diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñu bëri ñu ngi doon bëgg daje amaat ci biir libéraux yi muy retrouvaille nga bokk ci ñooñu est-ce que tey ak ni politique bi demee Idrissa Seck dugg ci nguur gi ñoom Oumar Sarr ñooñu am nga yëg-yëgu ne seen yéene moo fi mu waaw man dama jàpp ni loolu lu lu baax la en tout cas ñun dañu bokk man moom bokk naa ci catégorie bi nga xam ne nii depuis bu yàgg dañu jàpp ni avenir u Sénégal. Euh, libéraux yi dañ ci am rôle bu mag bu ñu war a jouer euh, libéraux yi dañu war a boole dañu war a manko dañu war a nekk benn c'est vrai que amoon na xeex yu bari yu am suñu biir depuis 2004 et c'est heureux que ñëpp boolo ci Ablaye Wade nag moo ñu njabootee ñun ñëpp moo ñu jur ñun ñëpp. Abdoulaye moo ñu dugal ci politique ñun ñëpp euh, moo formé ñi fi nekk ñëpp ñoom Macky Sall ñoom Idriss Seck ñoom ñëpp moo leen formé euh, tey nag li nekk nii ñun ñëpp dañ koy rafetlu euh, Abdoulaye Wade jubóo bi ñi ñëpp amuñu kenn amu ci problème ak Macky Sall amul problème yu bari ak Abdoulaye Wade je pense que jubóo am na foofu à ce niveau là donc lii lañ koy rafetlu di wax ni loolu dañ ko war a continuer rek yokk ko pour que waa PDS parce que ñun ñi ñëpp kenn amu ci problème ak Abdoulaye Wade c'est vrai que problème bi ñu am politique bu munoon bu ñu wax ni am mun na am politique mooy ñenn ñi peut-être ci Karim lañ d'accordul li Karim jël contrôle lu PDS mais loolu loo xam ne nii la incha allahu rabbi ci jamono yi di ñëw dinañ continuer waxtaan yi pour régler loolu. waaw mais mais ñëpp gis nañu boobu ak réconciliation boobu ah. Ablaye Wade dina ci bokk. incha allah mais mais gis nañu Ablaye Wade Ablaye li mu wax si retrouvailles yi dernièrement bi bi bi di sa sek duggee ci nguur gi moom jàpp na ne ay complot la ak ci ay intérêt personnel la tegu. est-ce que loolu du wone ne moom yëf yi safu ko noonu wala lim ci bokk la tax non non loolu loolu bugguma ci sori ñun ñëpp PDS lañ juddoo PDS lañ yaroo fa lañ màggee xam nañ ñu PDS di demee hmm. mais loolu du waxi ay Ablaye Wade waxi kan la loolu moom mun naa la wax ni commune waaw loolu xam nga PDS xam nañ tey ni mu tëddee. nan la loolu du wax Ablaye loolu communiqué bi PDS ñoo ko signé mais loolu du Ablaye Wade n'est plus dans la gestion opérationnelle. Hmm. Ablaye Wade tey ñun ñëpp ñi nga xam ne ñi ko bëgg ñi ko bëggal lu baax. Mm. mooy dañ ko wax dafa war a élever wu. nekk au-delà des divergences euh, partisanes des des contingences partisanes parce que njabootam dafa dépassé tey PDS parce que tey PDS li fa des benn pàcc la mais njabootam ñu ngi ci APR njabootam ñu ngi réew mi njabootam ñu ngi LDR ñu ngi PLD abla ñooñu ñëpp la njabootee donc dañ koy mettre au-dessus de tout ça maintenant nit ñi nga xam ne ñoo nekk communiqué bi peut ah mais waaw mais ñëpp xam nañ ni actuellement PDS Karim moo ko yor. maintenant Karim dañ koy dañ koy lancer un message. Hmm. aussi de réalisme politique euh, mu am expérience davantage de maturité ak réalisme. que aujourd'hui il ne pas avoir de destin au Sénégal en dehors des libéraux et en dehors de ses frères libéraux. Mm -hmm. il faut que mu comprendre loolu et qu'il devienne beaucoup plus réaliste ak ñi nga xam ne nii ñoo ko expérience politique wala jiitu ko ci parti wala gën ko xam ci parti bi mu nawloo leen toog waxtaan ak ñooñ parce que ci loolu la mun am un avenir dans ce pays mais pas dans la confrontation. d'accord léegi nag seen ndaje mi euh, bu weesoo wàllu politique bi euh, lan la mën a jariñ Sénégal naka la war a doxee ba askan wi itam gis ci seen bopp. Mm, mm, lii lii Sénégal kese moo ko tax a jóg. Hmm. du combinaison et il faut saluer le le courage politique de président Idrissa Seck parce que lii mu def nii ku amul courage politique mënu ko def courage politique kese moo koy def parce que mooy fàtte sa bopp. Euh, bu doon ay ambition personnel li gën a yomb ci ay ambition personnelle ak euh, mooy nga nekk ci opposition di sànni xeer mais opposition tabaxul réew te jàpp naa ni li ñoom li ñu am Euh, intelligence xam ni Abdoulaye Wade moo leen formé ñoom seen jeunesse Hmm. kat année quatre vingt année quatre vingt dix dañ ko xeex parce que kenn mu mënu leen jàngal xeex pour seen réew ñooñu bi ñuy jóg di xeex pour politique Sénégal néew na seen génération ñu amoon fi toog di xeex ñu accompagner Abdoulaye Wade ba mu jël réew mi deux mille ñoom ñu nekk ay ndaw Abdoulaye Wade tàggat leen ci gérer réew ba ñu am expérience bi yàlla def tey Macky Sall di président Sénégal ñooñu ñëpp tey Abdoulaye Wade dem nga nga xam ne ni génn ci politique retraité na du ñu fi toog di xeex di xuloo di xiiroo di ŋaayoo dañ leen formé dañ ñu formé ñun ñi nekk gën a nekk seen rakk gën leen suufe ndaw ñu ñëpp dañu ñu formé pour naka la ñuy gérer réew mi naka la ñu war a taxawee réew mi donc tey waruñu fi nekk di xiiroo di ŋaayoo réew mi fi mu toll jafe-jafe réew mi fi mu toll euh, dañu war a fàtte suñu bopp ay en divergence pouvoir kii nekk président kii nekk lële ñoo xam ne Sénégal moo moo ñor Idrissa Seck ku nekk xam ne ni président la bëgg a nekk Mm. mais tey bu demee ba nangu ñëw jël yor institution ne damay choisir implication direct ak personnel mooy jël sama loxo dugal ko ci biir euh, cin li pour liggéey mais je pense que kooku dañ ko war a saluer euh, remercier ko parce que Sénégal moo ñu tax a jóg te Sénégal tey pour que ñu jàpp suñu askan wi gën a yëg seen bopp ñu rek ñu saafara affaire ndaw ñi saafara mbëkk mi saafara li nga xam ne ni mooy agriculture saafara li nga xam ne ni mooy suñu développement accélérer suñu développement réew il faut que acteurs yi ci gën a mag euh, gën a représentatif ñu booloo ñu am consensus ak convergence bu large parce que consensus ak convergence bu large moom mooy mun a permettre euh, ñu am sérénité euh, bi nga xam ne nii moo war pour pour tabax Sénégal. jërëjëf tabax Sénégal rek. Mhm. tabax Sénégal rek moo tax a jóg li nga xam ne nii moom moo fi am te képp kuy patriote nga xam ne ni say ambition personnelle. Mhm. taxul a jóg wala sa say prétention personnelle. Euh, lii am fii euh, da nga koy rafetlu mais loolu nag ñuy continuer di woo ñëpp di ñaan ñëpp ñu ñëw jàpp si mu am le consensus le plus large parce que loolu mooy doctrine politique bu président euh, rassemblement le plus large pour le bénéfice exclusif des Sénégalais parce que réew mi waruñu ko bàyyi quand même si ay aventuriers wala ay mains inexpertes du war si sax mën a jot wala yenn mbir yi jërëjëf Abdou Khafor Touré ñu lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. mais maa ngi lay fay bu baax man tamit di la gërëm